yéen da ngeen di sax ci àdduna ba faw dina imam laaj fa nasiitumul yawmal mashhuud ba tax ngeen fàtte bis bi nga xamante ni daa ngeen teew ci kanamu yàlla rafet nag yàlla fas yéene ñoo àtte tontu ñu imam bi bàyyi ñu ne ko ah loolu de am mu ne waaw baneen baneen laaj day laajaat bi tey ngi laajaat ba tey ginnaaw nan lay demee fa kayfa al xaal yow mi nga diw askan sa sangam laa bokk mu ne xamu ko ah téem a koo jox kon sama oto bi mu mujjee jënd mu ne du ko soxla sama kër gi mu mujjee tabax man pare naa pour jox ko mu bàyyi ma fi mu soxla ko lu ma jox ndax mu bàyyi ma mu ne ma maa defoo xiram amoo loo gën a bendeele ba mu nangu ko illa arwaax lu dul seen ruux yàlla nañu yàlla may iman ba yonent bi alayhi la la la la la am chum ki waxoon nee na nee na boo góorgóorloo ci def lu baax ak jaamu yàlla su malaaka bi di ñëw yàlla day wax malaaka bi sama jaam bi ruuxam gi daal nax ko ba jël ko waaye dafa gaañ malaaka bi ñëw daal ay ruux ruux tayib fil jasadi tayib laqad kunti ta'murinahu uxruji ila rawhin wa rihaan wa rabbin ghayri ghaddaab yow ruuxu sell bi nekkoon ci yàlla mu sell daan ko dundal génnal dem ci jardin aljana ya maa ngi lay xibaar dañ ma yónni kese sama yoon nekku ci waaye yàlla nee na kontaan na ci yow meral ko ñu jël sa ruubu sell bi teg ko ci plat premier asamaan malaaka yi xëy deuxième asamaan ñu naan xet bu neex bi juróom-ñaar bi juróom-ñaari asamaan foo romb rek ñuy teeru sa ruubu sell bi waaye bu dee bu doy waar defoo lu baax waxoo lu baax joxoo yàlla xàqam malaaka bi da koy bëf bif rek wan naziaati xaqa wan nachitaa wan nachitaa kon nañu góorgóorlu xam ni imam ne bu malaaka bi ñëwee ba maa def ko toral illa Allah mënul koo gàndeelee lu dul solo te nag mbokk yi ruux wasiya wasiya mooy ndénkaane wa ruuxu fiika euh, wadiatun udiataha satarudduha bi rahmi minka wa tusra wa xurub dunyaka allati tasa laha daaru xaqiqatuha tadulu wa tazhar tabban li daar laa yadumu naimuha وما شبه عما قليل يحرم nee na ruux bi yàlla na ko dégg wa wa ruux fii ka wadi'tu boo xamante ni jam na yaram boo xamante ni mënta mun li nga xamante ni mooy ak yaram boo xamante ni safar yi mënu koo mun dëgg sax bu la jamee nga tëb unzuru ila jawaa'ikum min ash-shawkati war-radaa booy dox ba jël sa tànk ne ko ngëm yàlla li nga xamante ni moom rek a fi ne te moom rek mooy àtte wa antum wa antum abnaau sabil nee na ñun ñëpp ñu ci yoon te yoon bi yàgg-yàgg dañuy àtt la waaj a waxoon tariqi qalilun wa zaadi qalilun wa ximli faqir fa fi yàlla ku fi indi ak yàlla ko yàlla fajal ku fi indi njàqare yàlla ko yàlla tegal sallallahu wa udxila aljannata faqad faaza baaraka allahu lana wa lakum fi dikri alhakim wa astagfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin alhamdulillah alhamdulillah alladi la yusafu gayruhu بالكمال ولا بالجلال والجمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعث رحمته للعالمين ليظهر فضله وعدله شهادة من لم يكتب شهادة القبلية فكان من جملة الحائزين من ربهم المزية صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة وصحابته الأنجم الزاهرة صلاة تتعاقب تعاقب الدهور يديم بها علينا ستره مولانا النصير أيها الناس إياكم والتخالف واعتصموا بحبل الله والتآلف وبه يعدنا الدهر بنبي وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا في غير ذلك بالدين تحققوا وسبل العافية اليوم لا تسلك إلا بالمقال ولا يزال يكذبنا لسان الحال فما لنا إلا عيون ناظرة لا تبصر وقلوب قاسية لا تفكر فما أشد الصمم الآذان لأن الرهب الشيطان فاتخذوه عدوا كما قال جل وعلا علوا نجانا الله واياكم من كيده وعمنا وصير المسلمين بخيره ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum salaamu aleykum wa rahmatullah وادخلنا الجنة دار السلام